ci li nga xam moom la ñuy jéem pour toujours question même moom la Macky Sall bëgg maanaam dem ci dialogue bi pour wax leen ndax dañuy reprendre la processus électoral maanaam candidat 19 candidats yi ñu neenal ko reprendre lépp à zéro wala dañuy bàyyi 19 candidats yi ñu dem loolu objectif bi ñu ci am bi ñu ci am mooy semer la zizanie créer la discorde consensus du am mu wut pexe pour yokk mandat ba diir bu ko neexee lool ci loolu la jëm mais tamit. am na beneen objectif bu mu ci am mooy Pastef fii laa koy waxe président Macky Sall li mu bëgg mooy créer des pro Sonko et des pro Diomaye loolu lay wut li muy jéem nii dafa bëgg a créer ay pro Sonko ak ay pro Diomaye maanaam mooy lan mooy bu nee léegi dañuy reprendre le processus électoral pour andiwaat Ousmane Sonko comme ni ngeen déggee tappalekatu APR yëpp di ko wax gis naa sax Euh, gëmmal dóor gis naa gëmmal dóor daan ni euh, élection bu Ousmane Sonko bokkul vraiment du élection alors ko moom moo fi taxawoon ni kun éliminer daa war a nangu dañ koo éliminer xoolal ma tàppale yooyu kon li ñu bëgg a gëmloo yenn waa Pastef yi mooy Ousmane Sonko lañ bëgg a andiwaat ci jeu euh, électoral dañoo bëgg Ousmane Sonko ñëw nekk candidat léegi loolu bu ñu nee dañoo bëgg Ousmane Sonko ñëw bokk ci élection yi nekk candidat mooy dañoo bëgg ngeen nangu ñu daq élection yi foo ngeen déglu ma li ma leen di wax nii lim ci jublu moom président Macky sàll mooy féewalew njabootu Ousmane Sonko féewale Pastef ak seen i ak seen i fexe ba xaaj ko xaaj boobu la ciy wut pour ko defee am ñu mer nan lay wutee ñu mer mooy su nee ban lañ ciy def ñi nga xam ne ñoom Bassirou Diomaye fay lañ jàpp ne daa war a continuer nga xam ne ñoom dañoo wax ni nañ continuer ak 19 candidats yi bu ko defee Bassirou Diomaye Faye continuer nekk candidat wu Ousmane Sonko bokk ci élection yi ci turu Ousmane Sonko ñooñu bu boobaa mën naa am ci li mu bëgg mooy ñeneen ñoo xam dañ naan non non ñun Bassirou Diomaye fay bu dee Sonko mën naa ñëwaat léegi nañ éliminer Bassirou Diomaye fay pour Sonko ñëw bu ko defee division am na loolu la Macky sàll bëgg donc Macky sàll dafa bëgg a féewale waa PASTEF loolu pour mu leer seen bopp bu ko defee ñii taxaw ne ñoom danoo bëgg. Sonko ñëwaat ñu reprendre le processus électoral ñee ni non Sonko du ñëwaat nañ bàyyi Bassirou Diomaye fay mu kon ne nekk candidat bi parce que élection yi kenn warut reprendre le processus électoral loolu Macky Sall am na ko ci comme objectif pour jéem a wàññi doole Pastef pour que ñu féewaloo du ñu bokk position foofu nag dama leen fii wax yenn waa Pastef que askan wi ñi ngi xaar Pastef pour pourquoi askan wi ñu ngi xaar Pastef parce que Pastef projet la yore loolu ngeen wax sénégalais yi te loolu laa gëm ni mooy dëgg projet nag ku ko yore ak ku ko mën a jiite day dem man ku ma xam-xam ne Ousmane Sonko li ma gëm mooy dañ ko jaay doole. dan ko jaay doole parce que Ousmane Sonko dafa war doon dafa waroon a doon kandidaa ñu jaay ko doole Ousmane Sonko ne man naam jaay nañ ma doole jël naa. sama projet bi nga moom laa bëggoon a doxal bu ñu ma falee ma jox ko sama rakk Bassirou Diomaye fay mu nekk candidat bi parce que ñun projet bi moo na ñor kon nag position boobu Ousmane ko am boobu mooy position bu baax bi maanaam li nga xam ne moom la yi di xaar mooy bu kenn reprendre la processus électoral parce que bu ñu reprendre la processus électoral mooy dañuy daq élection yi dañ koy daq mu génn la 2 avril te loolu bu ñu ko defee mooy dañuy yokk mandat wu Macky Sall mu ne mën a ñoqali ba décembre wala ba ba 2025 loolu suñ ko defee sénégalais yi daan mer ci képp ku ca ànd maanaam permettre ñu viole la constitution l'article 27 de la constitution l'article 103 de la constitution ñu violer ko pour mën a yokk mandat wu Macky Sall loolu Pastef mënu cee ànd quel que soit ñoom li ñu bëgg Pastef lépp moo tane ñu accepter ñu viole la constitution kon na leer Macky bu mu bëgg a diviser waa Pastef ba waa Pastef lu ñu bëgg bëgg bëgg Ousmane Sonko ñëwaat ci course bi il est impensable que ñu permettre au président Macky Sall muy jalgati suñu constitution te pour que Ousmane Sonko mën a ñëwaat nekk candidat fokk ñu reprendre tout le processus électoral te bu boobaa bu ñu reprendre tout le processus électoral mooy day dàq élection yi te suñu dàqee élection yi loo ne mën naa xew te Macky Sall est capable de tout Macky Sall est capable de tout capable na ñu reprendre le processus électoral mu dem ni kon Ousmane Sonko na ñëw nekkaat candidat dama koy bàyyi mu nekk candidat dem wut ay pexe ba ñu invalider la candidature de Ousmane Sonko bu ko defee Pastef du am candidat. lii mooy objectif bi fekk booba candidature bi léegi Ousmane la léegi ñu dem pour jéem a éliminer Ousmane donc loolu lépp c'est des objectifs de Macky Sall parce que Macky Sall dafa ragal Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu sañoon moom Macky du mës a bokk ci benn élection fii mais gis nga li muy ragal ragal Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye la gën a ragal fuuf da koo ragala ragala ragala ragal ba ragal di jéggi tey wa parce que Bas neexut a xam nga Sonko sax lim ci mën a naxante Bas du ko ci naxante Bas ci digg bi lay jaar bu ñëwee teg lépp ci yoon joyantiwaat réew mi comme ni ko Sonko nar a defee mais Bassirou Diomaye Faye mooy gën a am intransigeance foqarti ko ci moom du yombe noonu pour jëm koo wiñaar loxoom. weñaar loxo Sonko daal ci gàttal moo gën a yomb weñaar loxo Bassirou Diomaye Faye loolu Macky Sall xam na ko loolu tamit noonu Macky Sall di leen gëmloo waa Pastef yéen que Sonko ñëwaat lañ bëgg léegi nag bu ko pro Sonko pro Diomaye fii pour amu fii xam nga lu am pour projet projet Pastef bi moo am solo ku ko mën a doxal baax te Bassirou Diomaye fay suñ ko bàyyee mu gañe mais ku xam Bassirou Diomaye Faye xam ne du réeroog Ousmane Sonko du mos a wor Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay su gañee élection yi waxtaan wi nit ñi bëgg nag maintenant bu boobaa lay jot la dialogue moo tax man d'accord ma ci dialogue avant les élections dialogue xaju fi li fi xaj mooy jàpp datu élection yi ñu dem élection sénégalais yi fal kin bëgg a fal mais suñ fi seetaanee ba dem fi ay dialogue bu ëllëgee lu fi mën a am ña demoon ci dialogue bi ñooy jël seen responsabilité devant l'histoire et devant les sénégalais kon fii dialogue xaju fi dialogue bi après les élections la war a am bu ñu paree élections yi nag Bassirou Diomaye Faye gagné élections yi léegi nag woo ñëpp woo woo parti politique yépp woo banqaasu réew mi yépp ñu waxtaane ko su jaree mu écourter mandat mu décider da koy écourter pour permettre a Ousmane Sonko de revenir dans la course pour permettre aux autres candidats spoliés de revenir dans la course pour permettre à tous les sénégalais yi bëgg a bokk ñu ñëw bokk bu boobaa man boobu laa d'accord bu boobaa mën na ñoo def un mandat de transition parce que dégg naa Macky Sall di wax mandat de transition di wax transition Macky Sall yow kenn defloowu la transition xam lu ñu la defloo jàppal sunu datu élection ñun sénégalais yi ñu fal kin bëgg a fal léegi nag kooku ñu fal suñ demee ñaan ko mandaam mu def transition transition de deux ans pour permettre ñëpp ñu ñëw bokkaat mu organiser ñu élection yu leer reprendre le fichier électoral lépp jaar yoon ku bëgg a nekk candidat nekk candidat lii mooy dëkk ku fi def leneen du lii yaa ngi nax sa bopp kon pastef bu nu juum Macky Sall diviser pastef la bëgg te loolu bu ko waa pastef nangoo dina nekk rëy rëy rëy ci Pastef parce que Pastef nguur gee ngi nii ci seen loxo jot ngeen ci ba pare bu leen nangu loolu bu leen juum bu leen juum li am solo yéen yàgg ngeen ko wax mooy projet Pastef bi mu yore nga xam dafa wuute lool ak li fi système bi mos a def depuis 1960 projet boobu moo leen ñor moo ñor Sénégalais yi topp seen ginnaaw bëgg a voter Ousmane ko te Ousmane Sonko wane na ni moom nguur tax koo jóg moom projet bi la bëgg mu gañe kon nag comme Ousmane Sonko loolu la wane bu leen fi féewaloo taxaw leen ci position biy dëgg te position biy dëgg mooy bu kenn soppi constitution bi nañ dem élection avec les dix neuf candidats validés par le conseil constitutionnel. bu ñu paree nag ba Bassirou Diomaye Faye gagné élection yi ci kàttanu yàlla parce que ñëpp xam nañ ne moom majoritaire au Sénégal parce que Sonko ko mu joxoñ Sénégalais yi voté ko bu boobaa nag bu bas gagné ba pare léegi nag mën a toog ak Sénégalais yépp bu ko defee mën nañ ko ñaan ci njekk ne ko léegi Bass defal mandat de transition bu ko defee Ousmane Sonko mën a ñëwaat bokk ci course bi bu ko defee boobaa sax. mu ne man nekkuma candidat dama leen di organiser élection yi leer Ousmane bokk ñëpp bokk ku ñeme bokk waaye jàpp naa ne boobaa ñu bare du ñemee bokk waaye ñu def élection yi leer bu defee Ousmane bu ñëwee bokk gañe wax ji féete boor mais gis nga leneen lu ngeen fi def lu ngeen fi def erreur boo xam ni nit ñi daañ leen mere Macky Sall lool la ci bëgg pour que seen électorat wàññeeku bis même bu ko Macky Sall doon def yéen bu leen ci bokk maanaam parce que sénégalais ko d'accord te foofu laay mais même bu Macky Sall bëggoon a forcer jaay doole ne moom day forcer par force moom day reprendre le processus électoral pour andiwaat candidat am ba nga xam ne mënta mënta gagné moom euh, waa Qatar pour wuti pexe pour andi waa Qatar donc loolu bu fekkente ne moom la bëgg a def jaay doole askanu ñooy taxaw ne d'accord mais yéen l'essentiel bu mu jógee ci yéen Macky Sall bu bëggee jaay doole askan wi lay jàkkaarloo. parce que actuellement Macky Sall dafa bëgg a défier askanu Sénégal pour li nu bëgg mën leen du ngeen ko fi defee man li ma bëgg laay def mais bu boobaa bu ko waa PASTEF porté la position de PASTEF doit être que nan continuer processus électoral bi 19 candidats yi nga moom la conseil constitutionnel validé ñoom ñooy dem élection Macky na organiser élection yi avant le 2 avril pour que le deux avril moom mu mën a euh, jébbal lengay ki nga xam moom la Sénégalais yi bëgg fal. kon lii mooy position bi nga xam moo baax Macky Sall nag bu jaayee doole xeex ak askan wi Pastef ànd ak ak askan wi comme ni mu ko yàgg a defee ñu jàmmarloog président Macky Sall wóor ko ni ko moomu réew mi te ci loolu lay waxee ak waa aar sunu élection aar sunu élection taxawaay bi bu mu changé la position de aar sunu élection mooy bu kenn soppi datu élection bi loolu mooy position bi. Macky Sall lii mu wax nag tey dafa wone ni moom parewul pour respecter datu élection bi ak ni ngeen ko waxee ni ko na ko def en début mars parewul pour def ko comme parewul pour def ko nag aar sunu élection mënta dellu ginnaaw taxawaay bañ amoon ak plan d'action bi ñu amoon nañ ci nekk grève général bi ñu doon waajal nañ ci nekk syndicat d'enseignants yi nañ ci nekk euh, syndicat euh, médecins yi nañ ci nekk euh, syndicat yi nga am ñoo yore Euh, privé bi nañ ci nekk na sénégalais yépp taxaw fañ taxawoon plan d'action bi ngeen yoroon yéen waa aar suñu élection taxaw leen fa bu leen soppeeku su ngeen soppeekoo ça veut dire la ngeen woowoon sénégalais yi tañ fekk si leen ci te loolu ñëpp gis ko ci marche bi nga moom nañu moom lañ moom lañ wootee samedi bi ñu génn ñëpp gis ni euh, wax dëgg yàlla sénégalais yi génn nañ massivement def marche bu mucc ayib kon nag li ñuy xaar ci Euh, aar sunu élection mooy mu wéyal xeex bi parce que Macky Sall won na leen ni ci à travers tey émission bii mu def ni moom parewul pour wàccoo ak constitution bi parewul pour def élection yi ci mois de mars bi pour mën a respecter la date butoir du 2 avril bi nga xam ni moom ci la nguuram war a jeexe kon nag lii mooy position bi na Sénégal yépp am taxawaay ñu xam ne président Macky Sall dafa bëgg a défier nit ñi jaay doole ñu moom sunum réew dénk ko ko fukki at ak ñaar ba pare daan ni euh, moom euh, dañoo bëgg euh, mu delloo ñu sunu yëf moom président Macky Sall muy jaay doole.